2008 ba 2018 at mu nek émigré Sénégal dougal nañ ci réew mi ci transfert de fonds 930 milliards de francs CFA 930 milliards de francs CFA. Mhm. donc ëpp na lool aide au public au développement bi ñuy recevoir ci bailleurs de fonds etc. donc mhm. te lool ben ki rek mais rien que 2019, 2019 sénégalais yi nek bitim réew dougal nañ ci mi 1300 milliards de francs CFA. Mhm. te xaalis bobu yëpp beaucoup jëlé 90

soko xolé même yow âge échec personnel parce que kër gu ne am na benn mbokk bu nek bitim rew mhm. bo xamné ne day yónnee cinquante euros wala 100 euros wala etc. cetera mhm. te loolu ci lañ doon def ay consommation mhm. man je n'imaginais pas l'ampleur de la crise donc question bi nga ma laaj dafa nek question bu am solo bo xamné ne ñu xalat ci tout de suite parce que rew mo xamné ce budget 3800 euh, milliards à peu près et le tiers de son budget ay fonds la yo xamné say émigré yi ñokoy duggal pour nit ñi mën a ak naan donc ça pose la question la sécurité alimentaire dans ce pays là. il faut que nous xam ban type de société avec le